asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki madaris al quraniya yen asila yéen ci net bi ci faatabiru yaa ulil absar ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci topp gi ñu ngi ànd ak tey xaadimul quran Ceerno Suleymaan Ly mu mel ne dafa am lu ñuy waajal ci turu madaris ak ci turu mbooleem kuréel yi yëngu ci daara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 ajibu daaciya allah wa aaminu bih yaxfir lakum min zunubikum wa yujirkum min cadaabin aliim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh imaam Mohamed Diouf ñu ngi lay nuyu Euh, di la delloo tamit nuyoo di nuyu waa madaris yëpp waaye di nuyu di nuyu képp kuy suivre faatabiru yaa uli labasir di nuyu képp koo xamante ne bi nitu daara nga soppe daara nga jullit nga foo mën a nekk ci àdduna bi li baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ëmb yal ci yow ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam woote bi yàlla la ndax ci diine yàlla la tegu ci téere yàlla la tegu ci ndigalal yàlla tamit ak yonent bi sallallahu alayhi wa la tegu waaw kon nag euh, ñi ñu ci woo nag ñépp lañ ci woo ñépp rek ñi ci jiitu nag mooy ñi ko moom gën ko ñi ko gën a moom muy waa daara ji suñu boroom moo ñu jox ndigal ne fa firru ila allah suñu borom moo ñu ne wa yuhadirukum llahu nafsahu kon nag kuy làqu ci yàlla ngay làqu waaye kuy moytu tamit yàlla ngay moytu ndax lépp ci loxo ci loxoy yàlla la nekk fa subhaana alladi bi yadihi malakuutu kulli shay wa ilayhi turjaun kon nag yàllaa fi nekk ñu daw nag dem laqatoo ci moom jàng alquranul karim jàng ay dog def ay ñaan pour yàlla sambal ñu suñu daara yi waa daara yépp ñiy jàngale ñiy jàng seeni alal seeni njaboot seeni soppe ak seeni njabooti soppe sàmmal ñu tamit aaral ñu masalan suñu réew waaye safaan bi tamit ci kaw ñiy xeex daara bañ daara te tuubuñu deltu deltuwuñu ginnaaw kon nag ñi ko moom lañ ci njëkk a woo di ci woo waa réew mépp soppe daara yeeg maanaa <coughs> euh, dañ ci waxtaane loo xamante ne bi tey concerné na ñëpp ndax tàmbalee ko ci suñu kilifa diine yi dañ leen woo ci bës bi suñu kilifa euh, njiitu réew ak gouvernement bi dañ leen woo ci woote bi boroom alal yi amul kenn kuy senegale kuy nit rek koo xamante ni bi dëgg ñor na la injustice masalan du lu neexu la lu dul woo nañ la ci pour dëgg masalan taxaw ndax ajibu daay allah yàlla moo njëkk a woote ne nañ topp dëgg nañ dimbali dëgg ne nañ bàyyi tooñ nañ bàyyi néewal doole nañ bàyyi sabote loolu yàlla ci boppam masalan moo ko wax waaw Muhammad bés bi de le octobre la bëgg nañ cee am junniy kaamil ak téeméer ak fukk ak benn ak i dok ñaan moo tax ñi ngi woo képp kuy borom daara mbaa nga mën a jàng même individu kenn benn nit kese bu mënee jàng kaamil donte benn kaamil lu mu ci mën a def masalan na ko na ko jàng waaw fukki région yeeg ñeent ci Sénégal bëgg nañ mbir mi am fa ñu taxawal ko diggante dix heures ba midi wala ba fu ñoom fu seen xaal lu seen xaal laaj euh, numu mu tud tuddati euh, euh, fanweeri départ fukki département yeeg juróom bëgg nañ fi département nekk masalan ñu def ko euh, fu commune fu mu nekk fu gox lu gox sori sori ci Sénégal bëgg nañu yëg ñu yëg bés boobu bésu daara yi la bésu daara yi la yu ñuy bokk ñaan bokk masalan def seen déclaration wane na ñu ngi leen di tooñ ñu ngi leen di lor ñi ngi ñoom di ñu ngi muñ ñi ngi leen di xañ masalan seen àq ak ak seen yelleef ndax depuis bu yàgg alquran wax ko wa tuxrijuuna fariqan min diyeerihim yàlla di ko ñaawlu wane jaadu wane ne jaaduwul nit ñëw joxuñu ko aqam mbiram matut mu jël potam di yalwaani ngir sàmm ngoram sàcc wut jaayut cigarette jaayut yamba ja leneen deful lu bon di def loo xamante ne bi ay sëriñam ñam mu fekk ñu koy def ñu ko doon def ndax bu gàmmu jotee gis nga ko ñëpp fëx dem gàmmu ji et pourtant ka ñu jëm ci moom de mooy taalibe bii doon yelwaan bu màggal jotee ñu fëx ne màggali nañ et pourtant de fi ñu jëm taalibe bii doon yelwaan la woon bu ziyaar jotee mbaa ñu gis nit yor kaalaam yor kursam yor téereem ñu ne kon ñaanal ñu gis nga bii doon yelwaan bu ñu jaaxlee daa di daw wax leen nit ñi et taalibe bii doon yelwaan la kon nag taalibe bi doon yelwaan bu màggee doon élimaan bi doon xalifa général bi doon kilifa gi doon ñaankat bi waaw mu nekk noonu jaar fa ñooñu jaaroon ñu ne ko tey nga génn Dakar mbaa tey nga génn Mbuur mbaa tey nga génn fii yow doo fi yelwaan te joxuñu la ah loolu lu muy tekki joxuñu la na nga toog bañ a yalwaani joxuñu la sa àq considéré wuñ la booy jàng duñ la defal dara boo paree jàng duñ la utal liggéey nga ànd ak sa ngor liggéey tamit masalan di def ci ñoom ñu ne la tey yow mii boo màggee nara doon élimaan bi nara doon sëriñ bi nara doon xalif général bi nara doon tukkikat bi nara doon ambila bi nara doon gor gor gor nara doon liggéeykat bi nara yenu lépp lu ëpp solo te jàmmal réew mi ñu ne la fii doo doo doo ko fi defee xam nga loolu jaaduwut wax ñi ciy wax ak suñu kilifa diine yi ndax ñun ñu ngi laajan laajante suñu biir est-ce que lii ñuy def daara yi kilifa diine yëg nañ ko wala yëguñu ko ba ñu ngi laaj sax est-ce que président ci boppam yëg na ko wala yëgu ko mooy responsable nag ci képp koo xamante ne sénégalais la mu yëg ni am na ci doomu réew réewam ñu ñuy sonal ñu ñuy tooñ ay ministère nag yu ñu samp te tey ku ko jiite ci jamono gi jamono ji di Ndeye Saly Diop ministère boobu sax li muy def daara de daara dem na ba gis ne dindi fi ministère bi masalan moo gën ndax ministère bi lii muy def bu ko bàyyiwut lu mu mën a juró réew mi kenn xamu ko ndax tooñ ay nitu yàlla tooñ ay daara lor leen ñu mën a ñaan ñu mën a def lu ne lii élèves yi di def lii étudiants yi di def waa daara ji mën na ko mën nañ ko de te dàquñu leen ko gënuñu gënuñu leen koo xam kon nag bu fekkee am na lu leen tënk ci mbaax nit nag boo koy dàq muy dàq mu di daw di moytu dangay da da moytu nag ndar képp ko ndax boo ko ndaree képp ba bu dawee amatul fenn fu mu jëm boo moytuwut nag dina dina dina seet leneen te loolu dina ci bokk lu nit lu xel mën a nangu mu wëlbatiku rek songu la bu la songee nag masalan lu mu am jël kon nag ministère bii moom boo seetloo lii muy def daara gi bu dakkut fitna mën na yeewu ci réew mi te bu daara ji bés bu yëngalee fay ko dootul yomb ndax féppay takk ndax daara ji ni mu nekkee ndakaaru noonu la nekkee Thiès noonu la nekkee euh, kawlax noonu la nekkee Tamba noonu la nekkee Fune noonu la daje aduna jinne yi seen bopp tey ñu ngi ci daara ji jinne yu baax yëpp tey am nañ lu leen metti daara ji lañ àndal te am na ci waa daara ji ba tey ma wax la ko nëbbatuwuma la waaw mën nañoo yónni ay jinne bu ñu jaaree fu ñu war a jaar amul benn werante kon nag xeexu daara gereefu daara musiba la ci réew wa bu ko gën a bon nag seen xol yi mer seen xol yi yëngatu loolu moo gën bon kon nag ñi ngi woo président ñu ne ko taalibe yii ñuy génne di leen delloo te defaluñ leen dara ba ci Covid 19 bi ñu tëj leen ne bu leen yelwaani bu leen génn te yëguma benn kilo ceeb bu jóge ci gouvernement bi ci turu daara dem dem ci daara yi gisuma ko lu ñuy sedd diine ji daara yi ñu war a sedd ñi yelloo ndimbal gisuñu masala ndimbale wuñ leen. yoraluñ leen seen paj yoraluñ leen seen dara la ñu am seen pot ñu ne du ngeen fi téye seen pot kon loolu lan la mën mën a jural réew mi te réew mi nag ñaara fi nekk ñi am ak ñi ñàkk te ñëpp nag ci Sénégal lañu ñu juddoo ci Sénégal lañu ñu bokk bokku jóge woon sax feneen fu mu mën a doon amul benn nationalité Sénégal waaye muy nit bu ñëwee dugg biir Sénégal teraanga gañu ba ñu xamee woon Sénégal teggin ba ñu xamee woon Sénégal yërmande ba ñu xamee woon Sénégal Sénégal war na koo toppatoo waxuma la nag doomu Sénégal. kon nag Mouhamed mi ngi noonu boo amee loo yokk.